Amadou Ba président rek lañ déglu yegg ah waaye yéen président yéen na leen de mbooloo mi président mi ngi ñëw ah mécanicien yi fi liggéey man ngeen a sol bu mu weex tal te du tilim léegi man ngeen a sol bu muy weex tal bu ngeen di liggéey te du tilim man ngeen a sol bu muy weex tal bu ngeen di liggéey te du tilim président Macky Sall rek moo def loolu président mi ngi dugg si dugg si. mécanicien yi man ngeen a sol bu muy weex tàll léegi bu ngeen di liggéey dootu tilim tali bi nga xëy see moom ngay liggéeyee. tali bi nga xëy see moom ngay liggéeyee. waaw mbooloo mbooloo mee bëgg a nuyoog yow. mbooloo mee bëgg a nuyoog yow. mbooloo mee bëgg a nuyoog Hello! sur ce site que la zone des mécaniciens professionnels de l'automobile professionnel de l'automobile d'occasion, qui va recaser également les vendeurs de pièces détachées. Monsieur le Président de la République, le Sénégal le sait et l'Afrique le sait. En termes de réalisation d'infrastructures, vous êtes l'unique champion. Vous êtes l'unique champion au Sénégal et en Afrique. Puisque votre œuvre ne saurait tenir dans une encyclopédie. Merci. Monsieur le Président de la République, et cela, vous l'avez fait pour le peuple sénégalais, vous l'avez fait pour la jeunesse. La jeunesse vous sera toujours reconnaissante. Gatchenga Lama, excellence. Parce que deug yalla Sénégal de visiter Sénégal ñu mais le Sénégal a tellement changé en termes d'infrastructure Nous sunu ndam la le titre la kon monsieur le président de la république yal na la fi yàlla bàyyi lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg nga di continuer de nous guider nous saluons toutes les autorités ici présentes monsieur le premier ministre Amadou Ba l'ensemble des membres du gouvernement. Nous saluons également notre très cher ami, Dr Pap Amadou ministre de l'Artisanat, de la transformation du secteur informel. Merci pour l'excellence du travail. Nous saluons également tous les membres du REVAS, l'Union nationale des chambres des métiers, les jeunes artisans, toutes les populations riveraines. Waouh!

qui vont nous présenter la Zampa. Monsieur le Président, nous savons que vous avez rendu visible la GTIP. Vous l'avez rendu visible. Et nous savons aussi, Bodial et Cornishbi, Machallah, Dangay Kontan, Sahol, Dangay Bik, Yoyep, cette vision-là, à GTIP. Nous demandons à Monsieur Gay, les sommes merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais, avec votre autorisation, faire la présentation en wolof. Président ginnaaw Bin la de la sargal de la jox sa de la sante bu confiance bi nga am ci ba ci sa vision nga boole nu lu bare bare ñu koy liggéey maa ngi nuyu sa premier ministre monsieur Amadou Ba di béral nuyoo le ministre de l'artisanat Pape Amadou Ndiaye di ko sant di ko gërëm parce que nit nitu neen la nit gu woyof la nit gu bëgg a résultat la donc soo toogee fii dafay laaj ñu wax la ko réunion de chantier chaque mardi dañ koy am fii moom moo fii jiitu moom moo fii mujj pour wane rek li nga ko ko donc nous ko won de wax avant ñuy présenter projet bi on peut mën nañu commencer dérouler la ZAMPA ci yow la zone d'activité des mécaniciens et des professionnels de l'automobile Nous bërepp bu ñu jagleel mécaniciens yi ci Sénégal ak jaaykatu auto yi jaaykatu pièces détachées mais ñu yokk ci yeneen service yoo xamante ni dinaa ci dellu si mais ñu tëb rek concevoir projet bi dafa am fu ñu jógee muy état des lieux dinaa ci ñëw sa vision dinaa ko gën a leeralaat léegi ci wolof dellu si ci les composantes du projet nan nga bëggee ñu tëggee ko wane liggéey bi ñu fi jot a def parce que liggéey su xasee ba pare kenn du xam lan la ñu defoon ci gannaaw

concept boobu lan la tudd ñu ni équité équité boobu loo ci jublu nga ni sénégalais bu ne ci domaine d'activité bu muy yëngatu na fexe ba jës ci boppam ba bañ a développer benn complexe par rapport ak beneen sénégalais buy yëngatu ci leneen te bokkul ak moom lu muy def nga sant nu ngi ni lii ma jës ci biir dakaar mënuma ko nangu garage yi tas condition de travail yi metti te ñii di ay sénégalais di ay ndaw bëgg a liggéey bëgg naa leen defal foo xamante ni xam ni fii lañ koy jaayee Zampa nga xamante ni benn lieu lay doon wala ay yeneen lieu yu mel nii yu ñuy aménagé ngeen leen nañ leen ci yokk donc concessionnaire yi ñoom ñëpp après daañ ci mën a am visibilité bu baax a baax ngi ni nag bu ñu fàttee oto yoo xam ne ni dañ leen sànni kenn moomatu leen ñu tuddee leen épave ñu tas ci biir ndakaaru ni fexe leen ba épave yooyu bëggatum ko jës mais buñ ko jël rek di ko sànni nii da ngeen may créer pour la première fois lu ñuy tuddee kaas soo demee Europe ak yooyu oto bu màggat dañuy dem dépiécer ko loolu lu ñu tuddee kaas lii ñu recycler ko lii ñu jaayaat ko mais ay oto yoo xamante ni 1946 lu ñu duggoon Sénégal ñu koy sànni ci mbedd mi loolu bëggatuma ko loolu nga nosantoon ci état des bi ñu def ko ñu continuer nga ni lii lépp lolu moy sa vision monsieur le président nga jagleel ko nak artisan yi artisan yi ñu tan ci mécanicien yi jaaykatu yi jaaykatu auto yi nga ni nan la ko traduire en langage architectural et technique lolu la ñu def buñ ko défé ñu indi wan la ko nga joxé sa accord bien que projet day dynamique à chaque fois da no wax leen ci li yokk leen ci li ngir yéene gi nga am pour artisan au Sénégal vous continuez donc wax naa ko légui projet bi ñu désencombrer Dakar deuxième partie bi ñu moderniser métier bi def de telle sorte que ken dootul mëna développer complexe ci parce que yow mécanicien nga mais soo nekkee mécanicien dang kay koy mais kuy ñëw aussi di defar si otoom dana man sol yéreem bu ko neex ni parce que suma démé fofu duma tilim ñu défal la ay espace yu yaatu ay atelier yu mag ak ay commodité yépp site bi nak fi lañ ko défé ci nduxu reppal mu nekk à cheval entre deux communes jam et Yène moo tax maa ngi nuyu ñaari maire yi fi toog ñoom ñaar ñëpp ñu nekk suñu xarit site bi 62 virgule 5 hectares nga ñu jox mu nekkoon nag terrain boo xamante ni dafa bare ay montagne ñu waroon dagg montagne yi créer ay plateforme parce que ku ni garage mécanique wax espace bu yaatu mais espace bi aussi warul accidenté ñu dagg ko ba am plateforme yi ni ko bëggee nga xamante ni ouvrier yi jaaykatu oto yi ñëpp daañu mën a circuler ci biir site bi te du am problème ñu jël 10 hectares jagleel ko fourrière foofu si daañ ko aménager ñu jël 10 hectares jagleel ko kaas waxoon naa ko léegi mooy oto yu yàgg yi yoo xam ne mënatul daw te kenn mënu ko sànni noonu rek mais ñu indi ko fii am nañu ay techniques yu ñu koy recycler yeneen yi duggaat ci biir leneen li ñu def ko ferraille seeyal ko defaat ko leneen li ci des Nous avons nañ ko activité mécanique proprement parlé ñu des ateliers. atelier ci première tranche bi ginnaaw bu ñu defee infrastructure yi ñu 52 hangars de 150 mètres carrés 52 ateliers dirais-je defar 88 magasins de vente de pièces détachées defar ay espace mooy comme li ngeen gis nii moo xam les véhicules d'occasion ñu subdiviser noonu mais Nous ni site bu mel nii nga Nous avons suñu réaliser lépp bu mu pare dina am plus de 400 hangars 400 ateliers am plus de 88 magasins yu ñuy ay pièces détachées warna am sécurité nu yok ci une nañ ci brigade de gendarmerie yok nañ ko ci nga ni ñu nekk mel nii am administration bo gère moy gérer activité mécanique moy gérer fourrière bi moy gérer casse moy gérer vente de pièces en fait moy gérer les luy activité ci biir ñu tabaxal leen ci ginaaw fi bâche bi bâtiment bu composante bu ne am administration bu koy gérer mais ñu ni projet bu mel nii kenn mënu ko def ci zone bi rek fàttee ñoo xamante ni ñu ngi dëkk ci wet gi nga ni nan la ci yokkal benn centre de santé comme ça ñu nekk ci biir di am fu ñuy fajoo du ñu sore parce que ku ni activité mécanique ku ni activité mécanique am ay gaañu gaañu parce que loolu la liggéeyu feeñ weñ la feeraay et cetera donc dafay am ay blessure nu bëggoon ko def poste de santé ngeen ni tuuti na def leen ko centre de santé parce que su leen ko defee centre de santé ñi dëkk ñi ci wet gi daañu mën di faju si fi dootu ñu demati sax ba jam ñaajo wax naa ko léegi projet bi nag ñu def ko ci deux phases parce que financement bi noonu la tëddee woon ñu dëkk def infrastructure yi dagg suuf si defar plateforme yi yeneen équipement yu def si nga xam ne ci deuxième tranche bi lañ koy commencé commencé nañ ko donc première phase bi ma résumé nous avons 88 magasins pour vente pièces détachées 52 ateliers loolu pare espace unique de jaayee oto yi ñu ngi ni administration bi gendarmerie bi pare na deuxième phase bi la deuxième phase bi avons 340 ateliers ak fukki pour augmenter la capacité d'accueil La deuxième phase bi la une plateforme wu euh, côté bu ñu fourrière ak côté bu ñuy jagleel bi Cas, CAS, bi dañuy défar plateforme yi défar hangar yo xamanteni après équipement bi rek mom moy des nga xam suñ ci dugalee équipement yi les véhicules qui dataient de plus de 50 ans 60 ans d'autres amati Dakar lolu gestion privée lay doon te loolu tamit yow ko monsieur le président lolu la bëggone partager ak assistance bi ak artisan yi ngeen xam président dafa qui xel képp kuy sénégalais. képp kuy yëngatu ku ci nekk ci sa domaine d'activité bàyyi na la xel looloo tax mu indi concept bu rëy bu ñu tuddee équité yemaleetuñ ko ci équité territoriale mais étudiant bi ak ouvrier bi ak foo mënti di yëngatoo yéen ñëpp yéen a war a yem ci Sénégal ku ci ne ci li nga yëngatu war nga ci gis sa bopp war nga ci naw sa bopp ku la fay fekk si war su la fa fekkee war na la fa naw loolu lañ leen defal fii ci site bi muy cité 62 hectares maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm merci beaucoup. merci beaucoup. merci Malik Malik Gay, merci beaucoup Mbokéi Yakarnaneli, merci beaucoup monsieur le président de la république Les Guinèques, euh, nous allons donner la parole à monsieur Bay Aliso, président REVAS REVAS regroupement des vrais artisans de l'automobile ngeen may ko loxo bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw son excellence monsieur le président de la république ak gouvernement bi yëpp di nuyu suñu ministre Pape Amadou njaay Pape Amadou Ndiaye li rapporteur bi wax sànq dëgg la chaque mardi mu ngi ci terrain bi dafa am volonté jege artisan yi di leen dimbali ñun mënuñu ko wax sax ci kanamu président mais luñ ko sant rek ñu ngi koy sant lu ko ëpp. di ñëw nag président tey sant bi dina bëri ndax lii dafa yàgg.

ñun am nañ relation bo xamné gouverneur yi ubbil nañ ñu ak préfet yi ñuy tok di waxtaan ak ñom di trouver ay solution kon tay bu luy ñëwé il faut ñu gëreum la ndax ñom pression lañu téggu mais ñun sa bu ñu ñëwé ñom ñu dimbal li ñu jappalé ñu. monsieur le président de la république di gërëmaale Mamadou Gueye ndax li tax ñuko ci duggal dafa nekk ndakaaru di duggal loxom ci artisan yi kon bu toogee. président toog ñun ñu nekk Dakar war nañ ko gërëm di wax ne nag président cinquante hectares yi nga ñu jox ci Diamniadio waa pompier keroog bi nga taxawee foofu pompier nga ne duma leen fi jële te dinaa ut fu ma leen teg tey jii loolu moo indi cinquante hectares yi ba ñu yaatal ko ñëpp xaj nax ndax décret bi la tudd kon waa pompier la nga leen waxoon président loolu am na ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm di la wax ni nag président cinquante hectares yi man dama taxaw en tant que Ali Sow président Revas national mais tey dama taxaw en tant que représentant des mécaniciens ndax tey Promécabil mi ngi fi MPA mu ngi fi ñëpp ñu ngi fi ñu tànn ñu si jox ñu kàddu kon dañuy wax ci turu ñu ñëpp di wax ni nag président jox nga ñu cinquante hectares am na njëriñ lool ndax dañ doon nekk dakaar di liggéey ay oto yi jàmbur oto boo xam ne cinquante millions lay jar nga koy gaare ci mbedd mi

Le président a 150 hectares menuisier et tailleur yop, 50 hectares 100 hectares Nous sociaux yi président de la république projet banque mondiale 30 milliards de projet déjà. projet le président de la république 8000 mètres artisans.

gars yi nee nañ ANAMO ANAMO day joxe ay outils outils yi kan la koy jox artisan yi nañ ko indi ci ministère de l'artisanal nan ñun nag tey président bu toogee bégal ñu dañ koy wax manquement yi am ak li nga xam ne moo am pour mu dimbali ñu ci président indil ñu ANAMO indil ñu yaa ngi dégg apprentissage ci ministère de l'artisanal président di ñëwaat di la wax rek tey dañuy kontaan jàkkaarloog yow ndax dañoo ñëw fekk la palais carlo et Maki. Nous le répondre président dañu bëgg valider deux mois valider nañ ko le président vers la e? validation sur les acquis de l'expérience man Ali mécanicien diplôme mais bien nous ma validation sur les acquis de l'expérience. Je professeur nous poser la question selon say expérience yow ñu jox la diplôme am nga droit chaque année ngay def candidat di ba am ingénieur koku président moko def président de la république tayari tayari contane nañ ci yow tayari contane nañ ci yow da nga jël 10 milliards diko joxe chaque at ñi ñew ay tenue scolaire tenue scolaire yi nak ñu dajo taxaw ànd ak ministre de l'artisanal artisanal ak DER directrice DER ñu ngi lay nuyu di la sant sa oyofaay li tax tailleur yi nekk ci quartier yi ñoo bénéfice oo tenue yi ñaw ko tenue yi monsieur le président dafa dimbali sénégalais yi ndax kenn ku nekk école privée yi rek ñoo amoon ay tenue nga ñëw ne quartier yi na ñëpp fexe tailleur yi fa nekk ñaw tenue yi kon tailleur yi ñu ngi lay gërëm di la sant seen président mu ngi ne Mor Sow nee na am na tenue yére bu mu la ñawal sax pour jox la ko président jokkoo bi ak le président Macky Sall ñu laaj la ne la président liñ la waxoon yëpp def nga ko lépp waaye dafa am question bu mu la posé woon ma top ko ba mu jeex ma ñëw di répondre ànd ak artisan yi dama ñëw poser la ci pétrole ak gaz 10 pour cent président dafa am kuy wax ci olof nde pétrole bi 10 pour cent lañ ci am nga tontu ma mu leer directeur u Petrosen dugg écran bi ci forum pétrole ak gaz ma dem ba foofu président di ko nuyu moom manaar mu nekk nit ku baax ba mu gisee loolu ba léegi forum ak pétrole gaz bu am daf may wow ma dem assister ndax ñun dañu bokk ci pétrole bokk ci gaz information yi dox ci réew mi ñun dañ ko soxla président li ma wax dafa leer bi ma demee si forum be gaz techniciens yi di waxtaan di wax tubaab ma laaj micro bi ne leen ki ko wax ci olof la ko wax ñu ne ma da ngay am sa kër nga jël sa taaw am lu la réer ci kër gi nga ne ko demal uti ku seet li réer ci kër gi trésor bi nekk ci kër gi sa taaw dem indi nit nga ne ko defal ndànk boo seetee gisoo da ngay perte mu ne la waaw nga ne ko waaye boo gisee nii lañ koy séddalee sa taaw mooy Petrosen taaw bi mooy Petrosen moo wëri woon boo gisee nii lañ koy séddoo boo gisee nii lañ koy séddoo ñett lay doon Petrosen day am 10 pour cent état day am dangay ngay fay taxe buñ ko boolee 60 pour cent la mais bu ñu koy wax dañ naan 10 rek la am président top na ko ba fofu ñëwaat na dajalé na artisan yépp ci chambre de commerce lancé ko te dina ci def tournée nationale leeral pétrole bi ak gaz président ñun nak wa Dakar duñu def dul dila sante dila gëreum Dis gërëm di ñoo tejj ministre Pape Amadou Ndiaye diko gëreumat ndax président Pape Amadou Ndiaye ministre la boo xam ne ku oyof la ñi koy fréquenté ñëpp defar na leen maa gënoon tàng koo gis maa gënoon tàng koo gis mais ministre Pape Amadou Ndiaye def na ci man lu baree baree bari di wax ni nag président de la république ñun de pare nañ pour woo la grand théâtre bindoon naa lettre bi moo jiitu boo ko liiree di nga ko gis bindoon naa ko bu yàgg yóbbu ko ci bureau premier ministre boobu lii ñëwagul ne ko ñun dañuy delloo njukkal président de la république grand théâtre te dinañ ko def président di la wax ni ci politique nag la ñuy wax ñun artisans yi nekk dakaar sonn nañ trop su élection jotee ministre yëpp ay ñibbi seen dëkk bàyyi ñu Dakar koo jubal mu ne dem leen seen suñu ministre dëkkam la tal président jàppale ñu dañ la bëgg jàppale jàppale ñu artisan yi ñëwoon loolu il faut ñun ñu nekk dakaar nga jàppale ñu Mangi sante ñep di gërëm ñep di remercier le premier ministre président élection yi passé le ministre de l'intérieur dinañ ko sante sa kanam gërëm ko ndax conférence yi ma doon def yëpp ki nekk ministre des finances légui moko doon animé te ministre de l'intérieur mo doon jappalé kon loolu bo toogee ñu wax la ko président suñu xol mo sedd tay tay nak 14 régions yëpp ñoo fi ñëw 14 régions yëpp

kontaan nous, trop trop trop trop Baye Aliso, président Revas Revas 1 jërëjëf Rol Sedna. merci beaucoup Les nag nous recevoir cher Yangra, président Revas 2 Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Monsieur le Président de l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal, Monsieur le Président de la Chambre des métiers de Dakar, chers collègues et collaborateurs du secteur de l'artisanat, particulièrement la filière automobile. Honorable invités, je me fais un plaisir et un devoir de vous présenter mes salutations les plus cordiales en ce jour mémorable marquant l'inauguration de la Zampa. Mesdames, Messieurs, l'histoire va noter qu'un rêve de plus d'une quarantaine d'années vient d'être réalisé sous le magistère d'un républicain engagé dans le respect de sa parole d'honneur. Face à une tolérance de l'ensemble des organisations professionnelles du Sénégal, je me rappelle, avant son accession au pouvoir, lors de son meeting de culture à Norfoire en 2012, quand une délégation des artisans de l'automobile s'était prononcée sur cette demande d'un cadre d'épanouissement, dans son allocution, il avait répondu ceci Inch'Allah, quand je triompherai, je réaliserai votre rêve. En, 2018, vous avez reçu en audience une délégation de feu Cheikh ministre conseiller chargé des affaires religieuses, avec une composante d'artisans. C'est ainsi que nous avions fait part d'avoir à notre disposition un site de 50 hectares à Djamniadio que nous voulions aménager pour les organisations professionnelles. Avec votre diligence habituelle, vous avez signé le décret d'attribution de ce site de 50 hectares dont nous marquons aujourd'hui notre présence pour l'inauguration. Mesdames, Messieurs, chose promise, chose faite. Au nom de l'ensemble des responsables des organisations professionnelles de l'automobile européenne ici présents, je remercie vive de vive voix son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Cependant, dans le cadre de votre promotion de l'habitation sociale, et dans le cadre d'un suivi d'épanouissement professionnel, nous sollicitons encore auprès de votre bienveillance une extension de ces emplois à hauteur de 150 hectares pour nous faciliter un accès dans notre milieu de travail en y érigeant un centre d'apprentissage dual en face d'une capacitation dans les nouvelles technologies et une valorisation des acquis de l'expérience, mais aussi un centre d'urgence de sécurité médicale. Son Excellence, pour résoudre le problème d'encombrement et d'occupation abusive des artères de Dakar, nous sollicitons, auprès de vous, des instructions fermes pour que tout conteneur de pièces détachées soit déchargé directement au niveau de la Zampa, nous permettant ainsi d'avoir un accès facile aux pièces en cas de besoin. Également, Monsieur le Président, nous vous demandons d'être notre interlocuteur auprès du directeur du Sud, afin que des lignes de transport urbain communément appelé Tata, soit créé en fait de, de pouvoir desservir la gare du terre de Djamnyadjo à la Zampa et vice-versa, mais également de la Zampa vers Dakar, enfin, de faciliter l'accès aux usagers et aux professionnels. Son Excellence, nous souhaitons également un partenariat aux conventions avec tous les ministères siégeant au niveau des sphères ministérielles de Djamnyadjo pour l'entretien et la réparation de tous les véhicules des ministères. Monsieur le Président, l'ensemble des organisations de l'automobile, par ma voix, vous prie solennellement d'élargir ce type de d'emploi dans toutes les régions du Sénégal dont nous disposons des entités et par la même occasion de demander à nos services de nous faciliter l'accès de la régulation des papiers des terrains qui ont été attribués à nos secteurs dont jusqu'à présent table à être régularisés. Monsieur le Président, une telle infrastructure exige une gestion sobre et vertueuse. Ainsi, nous souhaitons que vous mettez en place un conseil d'administration ou un comité de gestion en collaboration avec les organisations professionnelles de l'automobile afin de mieux administrer ce beau bijou. Arrivé au terme de mon allocution, chers collègues, responsables des organisations professionnelles de l'automobile, permettez-moi d'informer son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, que le regroupement des vrais artisans de l'automobile nationale est né en 2015 et réparti sur l'ensemble des territoires sénégal et regroupe plus de 1000 garages et mécaniciens qui emploient et forment des compagnons et des apprentis. Le REVAS est également un grand acteur dans la sécurité et la prévention routière. Il réalise des dépendances gratuites lors des grands événements religieux du Sénégal, à savoir le Magal de Touba, le Gamou de Tiaon et de Kaolak, le Dakar de Medina Gounas et le pèlerinage marial de Popengil sans parler des journées de réparation gratuite des automobiles dans certains services administratifs de l'État, pour marquer notre empreinte de patriotisme. Le Sénégal, c'est tout d'abord les composants, car le président Kennedy disait au peuple américain, ne vous demandez pas ce que votre national peut faire pour vous, mais d'abord ce que vous pouvez faire pour votre nation. Enfin, mes remerciements les plus distingués à son excellence, à votre aimable autorité et aimable réalisation l'ensemble des organisations professionnelles de l'automobile par ma voix formule des pierres et des remerciements au ministre Pape Amadou Ndiaye pour son travail de titan aux organisations professionnelles de l'artisan pour la confiance accordée à de pour ces personnes. Merci. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier le DG des domaines Momodou Gueye qui n'a ménagé aucun effort pour le développement du secteur de l'artisanat. Merci, merci infiniment, Son Excellence. Monsieur le Président de la République. Voilà, merci beaucoup, cher Yanka. Yariyev. Voilà. Merci. C'était très belle allocution. Les Guénèques, mesdames et messieurs, nous allons recevoir M. Insa président de l'Union nationale des chambres des métiers. Merci beaucoup, Khalifa. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, honorables députés, chers collègues présidents des chambres de métiers régionales, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations professionnelles d'artisanat, chers invités, à vos rangs, grades, grades Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais en introduction de mon propos remercier tous les artisans du Sénégal pour cette belle et exceptionnelle mobilisation et toujours au nom de ces vaillants artisans, j'exprime à Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, toute notre gratitude ainsi que notre reconnaissance pour ce bisou. Cette gigantesque infrastructure exclusivement financée sur fonds publics est sans aucun doute l'un des espaces les plus modernes qui soit conçu en Afrique pour abrider des garages témoigne de votre ambition consistant de faire de l'artisanat le pilier de notre économie. Cette volonté s'est traduite dans la déclinaison du PSE, qui promeut dans son axe 1 la transformation structurelle de notre économie. Depuis votre accession à la magistrature suprême, les initiatives prises par vos gouvernements successifs pour l'émergence de l'artisanat sont lésions. Il en est ainsi de votre décision historique d'allouer 15% de la commande publique aux artisans. C'est le lieu pour moi de magnifier l'accompagnement et la collaboration des structures comme le 3FPT pour les actions de formation, l'ADER pour les financements consentis afin de permettre aux artisans de satisfaire les exigences contraignantes des marchés publics par le relèvement de leur niveau de qualification et de compétitivité et l'acquisition d'équipements modernes. La cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui à l'inauguration de la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile Zampa restera longtemps gravée en lettres d'or dans la mémoire des artisans sénégalais. Cette infrastructure met fin à la promiscuité qui a toujours prévalu dans nos espaces de travail et augure de bonnes perspectives ainsi qu'une image davantage reluisante du secteur de l'artisanat. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette magnifique réalisation vient s'ajouter à une panoplie de projets et programmes, tout concourant à assurer la transition de l'artisanat de survie vers l'artisanat d'industrie, susceptible de générer de la richesse et par ricochet créer des emplois. L'érection d'un ministère en charge de l'artisanat et de la transformation du secteur informel pour impulser la dynamique d'émergence de l'artisanat est la preuve de l'intérêt et de l'importance que vous accordez à ce secteur stratégique de notre économie, qui polarise plus de la moitié de nos concitoyens. Nous vous réitérons ainsi, Monsieur le Président de la République, nos vives remerciements. Nyoko Ndial, Albarka, Monsieur le Président. La dotation des établissements en tennis scolaire pour un coût de 30 milliards sur un horizon de trois ans, soit 10 milliards par an, et la décision d'attribution de cette commande aux artisans des terroirs sont la manifestation, encore une fois, de votre volonté de favoriser la relance économique par le renforcement de l'entrepreneuriat local. La confection des tenues scolaires territoriales doit servir d'exemple pour la fabrication de machines agricoles la construction de salles de classe, la fabrication de tables-bancs, des bacs à ordures, et en passe. Durant la pandémie du Covid-19, un important appui financier a été accordé aux artisans pour ainsi atténuer le socle lié à la crise sanitaire et soulager nos ménages. De mémoire d'homme, jamais un président de la République n'a autant fait que vous pour hisser au pinacle le secteur de l'artisanat et, in redorer le blason de l'artisanat. Cette posture éclairée résulte manifestement de votre forte conviction de l'artisanat et la solution face à la problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, à ce stade, à mon propos, de rendre un hommage appuyé, ponctué de félicitations à mon ministre, Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Dr Papa Amadou Ndiaye, pour l'organisation parfaite de cet événement historique. Monsieur le ministre, vous êtes accessible, courtois et généreux par ma voix, les artisans du Sénégal vous expriment leur soutien total et sans faille pour la bonne exécution des missions qui vous ont assignées. Je ne saurais terminer sans remercier, remercier chaleureusement mes collègues présidents des chambres de métiers et vous confesser ma bonne volonté à conduire l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal vers la performance au bénéfice de tous les artisans du Sénégal. Monsieur le Président de la République, les élections dans les chambres de métier se sont régulièrement tenues et de manière démocratique. Des présidents ont été élus dans chaque raison. Ces derniers se sont retrouvés et ont à l'unanimité, dans un esprit de grandeur et de dépassement, porté leur choix sur ma modeste personne pour continuer à présider aux destinées de l'UNCM. Je m'en réjouis, vous exprime ma gratitude et convoite du Tout-Puissant de ne point vous décevoir, Monsieur le Président. Toutefois, la sagesse nous enseigne que la réalisation des grands destins requiert la mobilisation de toutes les forces vives. À ce titre, je félicite toutes les organisations professionnelles artisanales et vous invite à vous rapprocher davantage des chambres de métiers, à unir nos forces

ginaaw bi ñu la santé monsieur le président de la république artisan Sénégal yépp ñi ngi lay sant ndax wax nañu ma te ñoom itamit gis nañu ne depuis nga ñëw ci bopp réew mi gis nañ cër gi nga jox le secteur de l'artisanat 2012 nga ñëw ci bopp réew mi avant nga mettre sa gouvernement sa premier sortie nga dem ca Tambacounda fa nga njëkkee wax ci artisanat lu yaatu wax ci sa yéene te la nga ca waxoon boobaak léegi ñu ngi koy gis tey jii fii ñu ci place bi di inaugurer li nga xamanteni ni mooy Zampa bi bokk na ci li nga xamanteni ni moom mooy sa vision te warna fu ne ci aduna bi sous-région bi amul fuma demul waye lu melni amul fenn ci ci sous-région bi kon li c'est une première en Afrique te lolu am le président de la République kessé motax ñu mëna am lolu Li tamit dëppoo ak gis-gisam ci plan Sénégal émergent

mais am ko ak waa 3FPT mais am ko ak waa fonds ZIP ma sœur Thérèse Faye mi ngi toog fii ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib waaye dama koy wax ñom ñep état lañ mais da fay am solo leg leg ñuy faral di dajé bu baax baax manam liko tubab di wayé synergie d'action ñu boole suñu doole ta kàddu googu yi tamit monsieur le ministre Papa Amadou Ndiaye dama koy dégg muy wax ci mom waaye pour dire wax dëgg rek ta yalla tax état bi def na lu bari ci artisanat à travers la DR à travers le 3FPT à travers le FONGIP waaye di leen wax ne nag lu ngeen def def def def doyul ndax yàllaa ñu may mbooloo boobu mais excellence mbooloo bii ngay gis nii dañoo tànn quelque rek dañu ne organisation bu ci nekk na indi ñaar wala ñetti kese mais li des te ñëwul ñoo ëpp fop te ñu ngi ñuy déglu ngeen gën ñoo bàyyi xel monsieur le président te xam naa ne yaa ngi ci. ah di la gërëm bu baax nag ci Zampa bii nii di la wax ne ñun artisan Sénégal duñu ko mës a fàtte ci àdduna dina des bu baax a baax a baax a baax a baax ci suñu suñu xol yi te dinañ ko yor ni nga xamante ne ni noonu lañ ko war a yoree. benen ba muy ministère de l'artisanat bi nga xamante yag dañ ko wax te li ma gën neex ci njiiti réew mi dafa mel da bokku suñu groupe WhatsApp yi

dafare dina fexe kam ko atelier yi day tëj lépp dinañ tëj dina fexe ma tek ben fonds bo xamanteni ni fonds de résilience lañ koy wax fonds de résilience manam nga dem bay waja souk suux mu ne la dama bëgg nga mëna taxaw am ndëgër lay fonds yoy gis nañ ko indi won nako ko scolaire yi tabit dans le cadre du projet de relance de l'économie Sénégal mu xalat ne tayer yi war nañ ñëw mu jox ñu 30 milliards ne at bu ci nekk dina am 10 milliards te ne tayer yi bëgguma mu yeb dem ci industrialisation mais nako artisan yi liggéey quartier bo dem nañ ko liggéey président malay wax ne te ni yooyu exemple bu bax la tailleur bo gis lu commune sori sori sori gis na bopam ci tailleur yooyu kon lool dama bëgg mu servir d'exemple pour yenen yi nga xamante moy am machine agricole yi dégg nañ la li nga defal pour agriculture baykat yi ñu lay sante bu baaxa baax di la wax nak baykat yi ak artisan yi ñom 6 ak 9 lañ bo ci ëlbati am benen bi 100 milliards li ngeen leen jaglé ñi ngi ñaan nga waxtaan ak suñu ministre mom tay mu waxtaan ak ministre de l'agriculture ba lépp luy équipement yo xamanteni ñu artisan yi mën nañ ko defar ñu defaral ko fi beneen ba yi tamit di bac à yi tamit bëgg nañ ñu ngi ciy liggéey yi tamit ak directeur Mass Thiam di def ay proposition nga xamante ne nii suñ ca yegg ak jàmm ak salaam yooyu yëpp mën nañ ko def njiitu réew mi ñu ngi lay sant bu baax di la jërëjëf di la ñaanal yàlla yi tamit nga yàgg fi ndax yow nga yàgg fi mooy suñu intérêt dafa am kat benn artisan ku ñuy wax suñu doyen du ma ko fàtte muy la doyen Amdi Moustapha Thiam moom ay Moussa jàngal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm mi ne ma ñun artisan xam nga lu ñu xam dañuy làmb daj mos

Merci, merci, merci, Voilà donc, euh, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant procéder à la remise euh, de cet important lot de matériel de diagnostic aux mécaniciens. Alors, juste un rappel, c'est sur instruction du Président de la République, euh, lors du Djoko Akmaki, que lui-même le Président avait donné instruction justement euh, de préparer un matériel justement de cette qualité-là. Alors, le matériel a été acquis et cofinancé par euh, le Fonds et le ministère de, de l'Artisanat. Merci beaucoup, docteur. Merci. Thérèse nous, Inch'Allah, à toute l'équipe. Merci. Takunan Boubar, Thérèse. Takunan Mamadou. Alors, nous appelons euh, Mbakefal. Mbakefal, moi, recevoir, façon symbolique. Wow. Une, Baké Exil pour recevoir demain du chef de l'État euh, cet important matériel. Ce que nous avons fait, Inch'Allah, si nous pas de nous avons fait Voilà. voilà merci ngeen tàccu li bu merci jërë encore une fois merci euh, docteur Amadou Pape Amadou Ndiaye et Thérèse jërë ngeen jëf léegi nag am nañu benn partie animation boo xamante ni bi mu ñu la ñàkk mu ñu la ñàkk de ah borom wàccaca yëgsil wala foofu nga koy doole Khalifa Faye Khalifa Faye wàccaca ah waa kon yëgsil gaaw rapidement

président damaa demoon makk waaye mënuma bàyyi mbir mi tànk yaa ngi ci ah laajte naa benn imam premier ministre nee na ma garaawul quoi comme président yaa ngi ci kii bi rek garaawul mun ngaa kii doxal mais dama wax lii yow xam nga ne man artisan laa yow président fekk nga ma mbuur may nuyu nag tous les ministres waaye dama koy teg ci loxo premier ministre Amadou Ba mu yaru mi ndax bu ma limee ministre yëpp damay juum waaye xewu jàmbur kenn du ci xew kan nga xam nga kan moo xewle Pape Amadou mii moo xewle te nag maak moom Cameroun maak moom Niger mu di ma teral fu mu turne na ma ana wàccaaca bi ma wàccaaca ko waaye may nuyu nag ki fi jóge léegi Issa Dieye le président de la fédération des artisans ku yàgg président de la République non Jerry Colidina c'est mon maire mais monsieur le président l'État est une continuité c'est le lieu de rendre hommage à un grand homme qui a beaucoup fait pour l'artisanat je veux nommer mon Talla il a beaucoup fait pour l'artisanat waaye Amadou Ndiaye vous avez une équipe qui gagne Bon, Amé Saloum Ndiaye directeur de cabinet Ahmadou Bamba Sarr donn koo xam ne neexu la donn maa ngi koy remercier moom it di ko ñaanal jaxate liggéey filu lu waaye xale bi bi mu ñëwee fa jaxate tegoon tànkam la teg tànkam mais ana waa Acherut mais Malick gars yi nee nañ ma wax leen yóbbante bi gars yi nee nañ président xanaa day luxus président gars yi nee nañ affaire yi fi ñuy génne kenn xamul lan la jam ñaajo boo fa jaaree yëpp ngi génn premier ministre lii ñëpp foogoon ne mënta am ah wax dëgg fayal yàlla nag sàllam toora buur gede borom fas naaru góor bi ku ànd ak yow sagal nga ko li nga duggoon réew mi yaa ngi ci wax lu tuuti liggéey lu bare bare bari jam ñaajo me ay xeer la woon ak ay guy léegi boo rombee jam ñaajo stade Ablaye Wade boo rombee jam ñaajo arena boo rombee jam ñaajo sphère ministériel waaye président yaa ngi liggéey loolooy dëgg damaa bëggoon a bàyyi tëgg bi nag waaye mënaguma ko bàyyi tànk yaa ngi ci ah jotagul de dañuy dem jox ma cóol mi jox ma mi tegal ma ko ci touch him, Why I touch him. bii dawloo gaa yi bokk gaa ko de hymne bi ah <laughs> monsieur le premier ministre ju dóor ko te nangoo saaro rooga dem na xoolum e dégguma dara de tàccu leen tàccu leen waay fañ na Macky xan rooga dem na xoolum o fañin fañ fañ fañ e, fañin fañin fañ fañ fañ ah loolu sama géer a ko moom fañ fañ fañ tawa caaca fañin fañin fañ fañ fañ tawa caaca fañ la Macky Sall xar rooga dem la xolum fañ la bàyyi Amadou xar rooga dem la xolum o oh, fañin fañ fañ fañ Amadou fañin fañ fañ fañ kay nga ni ku gërëmul da ngay xarab sama gaay yi nañ la sant nañ la ña nga àndaloon démb fàtte woo am nga kolere am nga ngor dama wax ni sin am na ñu mo wax ni def len ndànk président Macky Sall mam mindi say mamam, ku ko japp séeréer juum nga mam mindi say mamam, parce que fatou la judo fala yaro fala magge mo taxit nak wax ji touti di lu bari lo lañ xam ci mom monsieur le premier ministre ñu ngi lay gërëm di la ñaanal dal gi ak yar gi ak teey gi waaye nag Baye mbay Ndiaye Augustin Tine Mariama Sarr ah Mamadou Talla il a passé de très bons moments au ministère de l'artisanat loolu mun naa cee seede lu bari waaye Ablaye Dieye nuyu nañu la Thérèse Faye la directrice Modou Gueye mention spéciale buñ ay merci beaucoup. c'est un homme multidimensionnel. vive le président Macky vive le président. merci. Khalifa, merci beaucoup. Voilà, merci Khalifa waaw jërë ngeen jëf ci hymne bi neex na trop il faut nous beaucoup ko musée des civilisations pour l'éterniser monsieur le président euh, dañu ni euh, waaw Haj Mansour Seyd ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax nous appelons l'artiste le euh, Bébé est-ce na est? El Hadj Mbaye Pekh waaw dama bëggoon wax président ñu ngi lay ndokkileeti léegi xale yi kane yi dem nañu biir Algérie dóor leen léegi 3-0 ndokkaleeti ya yaay borom kub yi yow la xale yi déglu tubaar kàlla yaa nu jig lii nag mooy dëgg bàyyi leen ñuy wax ngay jëf wax dafa xuloog jëf na ko fu ma yenn nga yàqu jëf na ko bu ma dikkee nga toxu wax géwél rek la jig ñun ñu noo war a yóbbu gaa yi lu ñu bëgg a wax léegi ñoom ñoo koy wax waaye li nga def ci biir réew mi nit ñi gis ko ilaa Tuuba am ilaa Kawlax am lee mu noppi ilaa ndaram lii mooy jëf ku def la la war fanax yaa du doy nag dun la baa kenn doo dem fenn doo nu bàyyee kenn yow la nu wóoru yow la Nous de pleuré de toutes les larmes de notre corps, tellement le lyrisme est fort. Ça nous a touchés, ça nous a touchés, nous avons tous pleuré. Mais parce que tout simplement, elle a senti ce qu'elle a fait. C'est une de cette fille-là. Et il de comme en matière artistique, il n'y a pas de tricherie. Ce qu'elle a fait, faut dire que tu je suis tombé. Entre nous.

Merci, Pape Faye. Nous sentons l'émotion et la Merci. Ne peut pas toucher. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Docteur Papa Amadou Ndiaye, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet du département de Rufisque, Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les maires, Momodou Moulay de Djamnyadjo, Aaron Ndoy de Sendou et maire de Yen, honorables députés, hauts conseillers, membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président de l'Union nationale des chambres de métier, cher Issa Dieye, Mesdames, et Messieurs les présidents des chambres de métier, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames, et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, chers artisans, chères populations, Djerengen Jeff, Djerengen ñi muy waa artisanat jërëjëf muy mécanicien muy jaaykatu pièce détachée bu oto wala jaaykatu oto waaye jërëjëf itam artisan tailleur menuisier ak xeetu artisan bu mu mënti doon maa ngi leen di nuyu ci bés bii tey nous jagleel les professionnels de l'automobile te ñu gën ci ragné mécanicien ak ñi jaay pièces détachées ak ñi jaay auto amna naa mbégte lool daje ak yéen tay ginnaw demb bi ñu fété journée internationale du travail muy feetu liggéeykat yi fii ci Nduxura Pël ñew may nuyu waa Nduxure Pël ñëw indil leen lii ñu tuddee ZAMPA muy zone d'aménagement des mécaniciens et des professionnels de l'automobile may wax ni yéen ñu jara jàpp ngeen ndax nit ngeen yoo xam ni ci seen ñaq rek ngeen di dund ay jàmbaar ngeen ay boroomi xam-xam ngeen ay boroomit pexe ngeen lii moo waral lépp lu ñu war a def danaa ko def ngir jàppale leen ba ku leen gis mën leen a naw xam ngeen ne tey mécanique automobile nekatul mécanique bu yag ba tay ji dinañ len former dinañu andi wat centre de formation automobile fi ci Diamniadio amna ben amna sax ISEP toujours ci Diamniadio yo xamni ni yi lañ ko avec les métiers de l'automobile li nak yena ko ñaanon ma gis ne rew mënul jëm kanam su fekkee capital bi ni ndakaaru mel lay bëgg a wéyee noonu maanaam mbedd boo tourné gis garage mécanique wala garage ci mbedd mi foo tourné gis ñuy jaay oto loolu dafa war a dakk pour ñu wutal leen centre yoo xam ni daa ngeen fi mën a liggéey te lépp nag mën leen fi fekk si clients yi seen bopp ñëw di leen fi fekk si ku bëgg a jënd oto war na mën a ñëw fii jënd oto occasion kuy wut pièce détachée war na ñëw fii ci Zampa bi wut pièce détachée kuy am garage mécanique wala bëgg a defar sa oto nga indi ko fii kon war nañu ci phase 2 bi mottali programme bi muy fourrière bi ñuy wax muy zone de casse bi ñuy wax muy dispensaire bu mag bi ñuy wax centre de santé mais également indil leen ay outils yu mel nu DER yu mel nu 3PT yu mel nu FONGIP pour que ñi fi nekk itam ñu mën di leen financer di leen gunge ba ñu mën a toppatoo seeni liggéey artisanat nekk na secteur boo xam ne buñ ko jàppalee day yóbbu koom-koomu réew mi ci kanam ndax artisanat dafay secteur pourvoyeur d'emploi faut occuper barré, bare bare bare ci population réunie. gën ngaa mën un million de personnes qui ont ne impacté nañu entre chefs d'entreprise les compagnons et les apprentis. Les apprentis, apprenti yi programme P2E ñu gën leen atelier mécanique pour ndaw yi ñuy tàggat ñu mën leen gunge ngir ñu am peyor mais aussi xale yi fay ñëw mën a am tàggat bu baax suñu génnee ñu accompagner leen ñu taxawal ñoom it seeni mbir artisanat ni ma koy waxee c'est l'école de la deuxième chance te chance yooyu war nañ ko joxe ba mu mat sëkk maanaam président union des chambres wax na ko war nga mën tàmbali ci fu tuuti continuer ba fu qualification mën a au plan professionnel kon artisanat levier la bu ama am solo ci insertion parce que mën na absorber lu bare bare ci ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi li moo waral atelier de production artisanale yi nekk nañu un espace où nous avons a formation professionnelle vois, la qualification avec le pouvoir à maintenir ay instruments politiques yu état bi mettre en œuvre bokk na 3FPT bokk na ci projet du ministère de la formation professionnelle mais aussi moyen, yi nous ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel kon nag waxtu wi ñuy wax lu ëpp juróom-ñeenti téeméeri million ak lu topp def nañ ko ci formation yooyu la diggante 2022 2023 téeméeri ndaw ak ñeent fukk ak juróom-ñaar formé nañ leen pour mën leen suqali war leen mën pour 2023 ay formation yoo xam ni ko valider ci union des chambres de métiers loolu danañ ko def dans le cadre de concertation des artisans et des agriculteurs ndax ñu wara xol ñu leen di bolé jappalé leen bokk na ci wa Revas ma ngi leen di nuyu ci ñaari entité yi fi jël kàddu bokk na ci ñu le regroupement des chauffeurs de la région de Kafrin qui formation Bimaywa, avec le regroupement des artisans de la commune de Meké, mais aussi association des mécaniciens et électriciens automobiles de Tambacounda mais si nous avons ci au plan national li avec le ministre de l'artisanat ci solidarité nan lañuy yoké sen formation nan lañuy fexé bé financement yi fi am yegg ci si bu baax avec aménagement ay site lolu war nañ ko def itam ci région yëpp monsieur le premier ministre kon maa ngi lay wax ak ministre de l'artisanat ñu xol nan lañuy défé ay ZAMPA régional peut-être sur 20 hectares pour que nous menons un projet national euh, de d'espace d'aménagement d'aménagement d'espace pour les mécaniciens mais aussi pour les autres artisans pour les autres artisans Nous avons des sites d'exposition et de commercialisation de l'artisanat nous def benn Thionkesil def Lolo Modon, lolou mo don liñu tambali won ak Pointe Sarène avec un site pilote Lagrose, Somon, lolou yeb yëpp def nañ ko ñow nak def fa centre international des expositions de Diamniadio yakarna xam ngeen centre boobu la yeneen projet feñ nañu pour artisanat un milliard avec la Banque mondiale li de projet pour l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel Lolo muy PGA, ak mobilier national ak lii wax ci scolaire yi mu aussi ci 30 milliards sur 3 ans wane na mangi si ngi ci wet te lépp lu tambali won woon ko fas yéene naa union nationale des chambres de métiers ànd si ak artisan yépp ci audience bu ñu fas Amagien, am ak fin mai ci palais de la république pour ñu xol li nga moy les perspectives d'avenir kon ma ngi entreprise bi def liggéey bi muy Martiam Gétran du gërëm Ageroute agetype avec le directeur général Elhaj Malick Gaye di bien entendu le ministre de l'artisanat docteur Papa Amadou Ndiaye Sonalon naa lol, qui ci conseil des ministres bu ñëw laaj naa ko pap fu mbir yi toll léeg-léeg de def na ndox de waaye courant baa ci des waaye foog naa léegi lépp mot na kon bég nañu monsieur le ministre ci zampa amna ñu itamti itam ci ni nga xamante cohabitation harmonieuse ci plateforme yi ñu fi def may ñaan nak deuxième phase bi ñu baral ko mu pour que ñu mëna motali Zampa bi nek fi ci Nduxurab lolo Pël loolu mbokk yi mom la wax ci gattal pour wan leen rek ne lii dafa nekk tàmbali ci li nga xam ni moom laa fas yéene ànd ak artisan wu Sénégal di leen jàppale ndax seen liggéey dafa am solo ci économie réew mi seen liggéey dafa mat a jàppale te incha allah daañu leen jàppale bu baax a baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.